ñu ngi lay nuyu di doom ci Baye Thierno Niang ak ki nga xamante ne moom mooy Aji Faat Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di bàyyi ci abis ñang waaye di bàyyi ci Aji Faatu ñang di bàyyi ci Seex ñang ak yaa Ayda ñang baalo kon ñu ngi nuyu waa ñangeen yépp ñoom ah, ami koole bàyyiwuñ kenn Pa Moodu ñu koy wax Jalma Euh, bàyyiwuñ kenn ñu leen di nuyu yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar am mbégte kontante euh, oncle Serigne Babou moom mu ngi noonu euh, nekk di ñu seetaan nekk fii ci diwaani Banjul ñang baalu Assane ñu ngi lay ñaanal gudd fan wér ak wér la yàlla aar la sàmm la sàmm njaboot bi duñ def rekk lu mooy kool ki nga xamante ne nii moom mooy Elba mu dugg si ci programme bi Elba yow nag li nga xamante ne moom lañu war a def rek moom moo nekk di dial kon buur mun ngaa just dial number bi. 7 915. loolu lañ nekk di try nii. ok 9824. Ah, yaa waaye connection bi is ah, network bi moom moo nekk di daw. moo nekk problème bi right now but I know before the end of the program. I ah, will have the opportunity to talk to you waaye ba léegi damay ñëwaat dama lay dagg man nee la Facebook baa ma fi bàyyi. yéen mhm. lu leen neex def. ah Souleymane moom tamit mu ñuy seetaan ñu ngi koy nuyu di ko ziar am mbégte kontaan ci moom. ah Souleymane Bangora thank you so very much for following Sahel Network ñun yéen lañ fi nekkal. ah di leen wax ne ah, ñu ngi leen di ñaan ngeen bu leen em rek ci seetaan ñu waaye please like leen sun videos yi su ngeen ko munee share tamit ngeen share ko ñu ngi leen ay ñaan loolu. waaw definitely ah, like leen sun videos yi. waaw ah, ngeen share ko please ngeen share ko léegi li ñoo def rek mooy we go for a short break when we come back then we communicate with Alba. waaw loolu war na. ñambaane sax ndox mi sax. ndax bu nit di gën a day teel. waaw a naa tis yaram. seet lan a pour ñu baal abee a parce que feebar tamit a laaj noonu bu baax loolu a war a tis ba feebar bi wàcc si àddina bi yal na ko yàlla ji. comme soo seetee moom wér gu yaram moom nit ki foo fépp foo toll rek war naa seeti ci sa yaram wér gu yaram tool. dem di ceeg sa bopp moom loolu moom lu war la ma xam nga ñun fii moom dañ jàpp ne boo feebaree rek nga war a dem fan yii. soo soo seetee westam bi di nii sax comme ni nekk aaf bi nii ñoom dañ lay am seen docteur boobu every weekend wala every two weeks wala every month ñu ñëw ñu leen ay tegal ci liggéey bi seetu bi fi fi bi lay yéeg wala seen tableau pressé bi. xam nga loolu yëpp dafa baax doomu aadama nga koy seetu da ngay gis bu fekkee ne da nga am diabète da ngay xam ne contrôler sa suukar leer bi bu fekkee ne tamit kat béréb bi dafay yéeg ba nga contrôle li ngay lekk ak li ñu war a def pour nga wàññi ko loolu moom lu baax la moom. xam nga ñun tamit fii nag duma dee bileem nit ñi lu tax ñuy bañ a dem parce que tamit xam nga boo yorul looy lekk doo yor looy yóbbu ci pharmacie wala ci hôpital ñu lay tegal waaye loolu noonu da ngaa gis ne bu yor moom.

allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. mën naa nuyu ñëpp. fay nañ la. ci plateforme bi um, man la Modou Lamine Ba. Modou Lamine Ba. waaw the aspirant candidate for Banjul North on the ticket of United Democratic Party. fay nañ la bu baax suma jarbaat. <laughs> dama lay follow seen programme bi nag te. Eh, uh-huh. to be honest. comme nolak lañ ko lay rek. Banjul the capital. dëgg is sound minded uh-huh. am thank you But the awareness creation dañ ko uh-huh. more especially during the current situation of this country uh-huh. Um, mbindeef boo xam ne Gambia war na moo understand réew bi naka la moo doxee ak naka la war a doxee la responsibility